Salam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax baax mes chers compatriotes suñu réew mi yàqu Macky Sall a détruit notre cher pays le Sénégal man damay laajte ban Sénégal lañ nekk ndax Sénégal bi amoon bi ñu xamoon ñun ndax ci Sénégal boobu lañ nekk Sénégalu ngor Sénégalu jom senegaalu fulla senegaalu fayda sénégalu teraanga sénégal googu la Macky Sall ñëw yàq yàq ko ba mu yàqu yaxet cëqat cëqatee ko lépp luy jikko ju baax lépp luy ngor lépp luy aada bu rafet Macky Sall yàq na ko yàq institution yi institution yëpp daf ko décrédibiliser dévaloriser ko xam ngeen ne Adji Sarr li mu nekkee tey ci internet bii di ñaawal nit ñi li ñaaw na bëgg éliminer ben adversaire politique Macky Sall ñu dénk ko réew mi mu wara a liggéey réew mi mu japp ne opposant warta am ci réew mi ku jog ne day opposé wu mu ne daf lay faagaagal tax mu japp Ousmane Sonko ne da koy tëj kasso parce que ay nitam ku ci melni Mamour Diallo Ousmane Sonko daf ko wax ne ko dafa sàcc 94 milliards sénégalais mok mook sar 94 milliards yo xamné sénégalais yi mënoon nañ ci am ay hôpitaux yu bax digne de son nom avec un bon plateau médical wala ñu duggal ko ci ndox mi sénégalais yi am ndox mu ñuy naan ndox mu sel Dakar di capitalu Sénégal rek amul ndox même jour tabaski bi ndox dafa manki won wala ñu duggal ko ci courant bi courant bi doy nga xamné ne courant dootul coupéti wala ñu def ko ci njang mi nga xamné abri provisoire dootul amati wala ñu def ko ci tali yi am na yoon yoo xamante nii baaxul bëri na Sénégal am na dëkk yoo xam ne boo fay dem da ngay mel ni kuy jéggi siraat loolu yëpp defuñ ko ngeen sàcc 94 milliards yu sénégalais Ousmane Sonko taxaw dénoncé ko usman Sonko dafa dof bay taxaw rek naan Mamour Diallo sàcc na 94 milliards Ousmane Sonko doful dina jàpp ko loolu bu ngeen ko laajoon xale bu am cinquant ans sax. dafa leen di wax na Ousmane Sonko loolu ban intérêt la ci am yeewu rek un bon jour ni Mamour Diallo no volé nos quatre vingt milliards tax Mamour Diallo na dafay venger wu di jéem a teg deal usmaan Sonko di ko jaarale ci benn xale bu ñuy wax Adji saar utilise doomi jàmbur ne na jiiñ Ousmane Sonko viol li tax ñu ne Mamour Diallo ci deal bi la bokk mooy otoom lañ gis ne si le Sidi Ahmed Bay duggoon si lañ dugal aji sar te chauffeur ba chauffeur la gars yi bi ñu immatricule bi dañ ne turu mamou Diallo mo ci nek ñu japp ne ñom mbir mi sotti na dañuy ñew jiiñ Ousmane Sonko viol rek après ñu japp ko dem tëj ci kasso bi parce que daf ne dafa sàcc 94 milliards sénégalais ñu bëgg a tëj Ousmane Sonko sénégalais yëpp genn dëkk bi tak événement yo xam c'est des événements inoubliables kenn du ko fàtte. violence bu ci am nekk violence bu jéggi dayo am ñoo xamante ni dañ see ñàkk seen bakkan des pertes humaines quatorze xale génn ci àdduna seen waajur yi di jooy ba léegi noppeeguñu am ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen alal ñu toj seen ay magasin ñii ñu lakk seen ay kër lakk seen ay oto ñii ñu toj seen ay station taal ko am ñoo xam ne dem nañ ci au chômage am benn gendarme GIGN boo xam ne loxoom moo dagg ndax grenade bi la doon bañ mu exploser ci biir nit ñi mu téye ko ba loxoom bi dagg ak yu ci am yëpp ak ñu ci am ay gaañu gaañu léegi xale boobu waral loolu ak ñi mu àndaloon comploteurs yi ñu bàyyi leen ñoom ñuy vaquer à leur occupation victime yi ñi nga xam ne dañ leen a tooñ muy Ndeye Khady Ndiaye ak Ousmane Sonko ñu mettre leen sous contrôle judiciaire léegi aji Sarr am ñu ko ngemb dugal ko ci kër di ko toppatoo di ko protéger. parce que moom lañu jël def ko marionnette doomi jàmbur ay waajuram ñàkk fayda nangu ko bàyyi ñiy utiliser seen doom xawma dañ leen a jox xaalis xawma lan lañ leen jox léegi nag yemuñ ci loolu màkki sàll ak ñi mu àndal ñu bàyyi xale bi nekk ci internet bi ne dafay kokkali sénégalais yi ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen ay doom ci événement yi ñu ngi toog di xool ak yi Sarr

lañ mën a tuddee lii nii aji Sarr di def ak ñi mu àndal ak ñi ko ngemb ñu waroon a ubbi enquête bu leer ñu xam ñan ñoo rey doomi jàmbur yooyu noonu quatorze xale yooyu noonu su situer responsabilité yi ubbiwuñ enquête naan dañuy def ay commission d'enquête yónni seen ministre des forces armées Sidiki Kaba mu ñëw wax fi wax yi ñàkk xorom naan ay commission d'enquête ba pare jël mbir mi di ko jiiñ Ousmane Sonko mi nga xam ne dañ ko bëggoon a rey mu wequ ku bëgg a dee wequ mu wax na nañu résister nit ñi résister dal ci seen kaw ñu dellu ginnaaw parce que jàpp na ne képp ku koy opposé daf laa war a tëj ci kaso gi kon responsabilité bi yépp dañ koy wekk ci Macky sàll ak ñi mu àndal yàq réew mi yàq jikko yi képp ku wax te féetewoo ci ñoom wax loo xam ne arrangé wu leen ñu ne dinañ la faagaagal loolu nag dafa war a jeex ci réew mi xam ngeen ni lii métti na Ndeye Khady Ndiaye ñu ngi nii tooñ ko tëj salon yam placé ko sous contrôle judiciaire ba pare di protéger aji Sarr mu génn di def ay sinap di kokkali nit ñi di ñaawal Sénégalais yi pendant ce temps ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen ay doom ñoom ñu ngi toog bëgg ñu leeral mbir mi ñu war ko dénk gendarmerie wala police ñu ubbi ci enquête bu leer xam ñan ñoo rey xale yi defuñ loolu ñu toog di ñaawal Sénégalais yi di leen kokkali li kenn xamul nan le seul unique responsable Macky Sall parce que waral seul le pouvoir de Dieu est éternel yag yag fi fi ko mbiru suite Beauté dinañ ko ñi nga dañuy nga di protéger dina jeex gis dina loo gis dina jeex jox nañ la réew mi yàq nga réew mi yàq jikko yi jaxase nit ñi indi fi ay mbiru euh, ethnicisme indi fi mbiru régionalisme indi fi mbiru communautarisme jaxase sénégalais yëpp sénégalais yi léegi kenn xàmmeetu leen am na ay wax yoo xam ne mu ngi jub ci Sénégal kenn mësu ko xamee sénégalais te loolu yëpp Macky Sall moo ko fi indi ñu ko falee au lieu que mu liggéey politique politicienne la fi nekkee ak ay faagaagal ay nit ñoo xam ne ànduñu moom mel ni koo xam ne yow nekkoo ci démocratie léegi mbiru Sweet Beauté kenn du ko fàtte ñu war ko leeral leeraluñ ko ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ci deal bi yépp tey lu mu yàgg-yàgg di ngeen taxaw devant les tribunaux ñu àtte leen le premier responsable di Macky Sall Mamour Diallo Gabi Gueye bu ñu si doon tudd te nga xam ne goro ma Mamour Diallo la tam doon tamante dëmm moo maître Dior kii naan ko yow la kii naan ko du man ñoom ñëpp ak ki nga xam ne Antoine Diome di ministre de l'intérieur nga xam ne Macky Sall da koy jël di utiliser pour mu koy defal Sall boulot ak Malick Sall procureur ak préfet procureur nga xamanteni mom mo tax sax coow li gën a yokk moom dafa bok ci responsable yu gëna mag pour bëgg lu neex Macky Sall mom parce que mom mo wax ne nañ japp Ousmane Sonko mu jiiñ ko trouble à l'ordre public ak participation à une manifestation non autorisée mu nek ay fen yu reey reey rëy sénégalais yi nak gëna agité wu génn taal dëkk bi ne loolu du fi amé Ousmane Sonko ci biti wala dëkk bi tak xoolal ci yàqule sen alal nuñ bëree. parce que taal fitna baaxul moo tax alxuraan ne wat wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa bu ngeen di yee fitna moytu leen ko parce que bu ngeen ko yee dina dem ba laal koo xam ne yoonam nekku ci xoola xale ba ñu rey parcelle génn di dox polise bi dakk ko ba mu jub dóor ko balu bopp mu daanu deey kooku xam nga ne ay waajuram ak ñeneen ñi nga xam ne ñàkk nañ seen doom ci Bignona ca Diaobé ak feneen ak feneen ci Sénégal partout ñoo ñooñu tey bu ñu sañoon ñu xam ñan ñoo rey seen doom ñu mën leen a teg ci yoon waaye lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg dinañ ko leeral ndax bu fi màkki Sall jógee Ousmane Sonko toog dinañ réparer injustice yu Macky Sall def yi te dinañ ubbi enquête yu leer nañ xam ñan ñoo rey xale yooyu noonu ñu teg leen ci yoon kon daal aji Sarr li mu def man kokkali laa ko jàppee ak yabaate ñi ko ngemb tamit kenn gënu leen a yabaate kenn gënu leen a ñàkk fayda parce que yenn yi mooy fekk néew bu tëdd ba pare nga koy dompat ay nit dee ñàkk seen bakkan ñu war leen a dëfal dëfaluñu leen ñu leen di ñaawal di génn takk ay or naan dangay ngay benn jigéen sañse am na sax ñu wax ne jox nañ ko xaalis bu bari te xaaliss bobu ci la jëndal ay mbokam xaru tabaski kon xam ngeen ne seen deal bi chaque jour ñu xam ne deal la Sénégalais yépp xam nañ ne ay fenn la li ngeen bëggoon bu sotti won Ousmane Sonko mu ngi ci kasso bi faté nañ ko te loolu ta nekk ku yàlla samp da ngay a tuuti pour sempi ko pale bi ngeen di bañ Ousmane Sonko dugg fa insha allah 2024 dina fa dugg te Sénégalais yi maa ngi leen di lancer appel nañ def lu tout ñu préparé. Macky Sall troisième mandat bi nga xamanteni ni daf ko bëgg du fi amé ni ko Mali défé ba jëlé fa Ibrahim Boubacar Keïta Algérie def ko ba jëlé fa Abdoul Aziz Bouteflika bu bëggona am 5e mandat pacifiquement nak la leen wax ken kenn wu fi violence su boba nañ ko défé nonu wan Macky Sall ne ko seul le peuple est souverain te doole ji mi jaay peuple bi ñoko ko jox ñu waccé ko fal Ousmane Sonko tek réew ci yone réparer injustice yi ay enquête bépp ñaawteef du fi Macky Sall def ñu léral ko bépp sàcc bo xamanteni ni ñi mu àndal sàcc nañ ko alalu Sénégal yi lubal ko ñu génnee ko asalaamaaleykum wa rahmatullah